plateforme d'information. ba tey ñu am mbégte ak bànneex saa nekk rek di wéy di ànd ak yéen ci li nga xamante ni rek moom mooy la campagne électorale. Euh, pour l'élection présidentielle du 24 mars 2024 actuellement nag ñu nekk ci diwaanu Louga ginnaaw rek bu ñu àndee ak coalition boobale commencé fee ca Dakar wéy ak ànd ak yéen. niki noonu jaar Mbour démb def benn cortège bu mucc ayib ñëw nag fi nga xamante ne moom mooy Mbour euh, ki ñu toogal nag euh, kenn la koo xamante ni kenn dootu ko présenté xanaa rek di leen wax leen ci ay filiation di ci maman Amy euh, Seye nekk présidente du mouvement Fatal waaye aussi tamit membre de la conférence des leaders alliés de la coalition du Diomaye président ñu nekk nag war a daal di wéy di waxtaan ak moom rek ci lu soxal boobalee campagne maman ñu ngi leen nuyu. waaw maa ngi lay fay di leen nuyu nuyu waa Sénégal. di nuyu ñëpp di wax ni am nañ mbégte lool gis leen tey ci coalition bi déplacé Dakar ba Mbour ñëw Louga mu doon luñ rafetlu ndax it vraiment waa Louga luñ doon xaar la ndax chaque année rek chaque élection dañuy xaar coalition bi jaar Louga ñëwee joxe seen message yi dem ndax dafay am solo ndax Louga dafa xaw a ci politique ndax dans des années depuis indépendance dafay nekk ci bastion pouvoir mais nag li waral lool lépp mooy détermination bi ñu am ñu am ñu ñu àndal ñu jiite ñu nekk ci coalition bi di nit ñu déterminé wu dee des leaders politiques nekkoon de candidats ku ci mel ne Abdou Lahad taxawaayam gis ngeen ko gis ngeen taxawaay bi mel ne Modou Mané Diop leader yi taxaw yépp nga gis leen ak ñun ñii ñoom Lamine Gueye ñëpp taxaw nga xam ni kon macha allah ni xew Louga tey saa su ne am na renversement situation am na. Hmm. lu ko waral nag mooy président Ousmane Sonko moo taxaw taxawal idéologie taxawal philosophie taxawal vraiment projet projet boobu nag ki lañ bëgg a defar Sénégal joyante ci réew mi joyante ci jikko yi. ba Sénégal gi jëm te kanam ba au soir du 24 jox teg ko ci loxoom moom président Diomaye Faye mi nga xam ne mooy candidat bi mun a jubbanti Sénégal ci anam bu rafet. Mm-hmm. voilà ginnaaw bu ñu leen masawoo ak coonay campagne bi dañuy rek ñëw ci li nga xam te ni moom mooy actualité bu ñu waxee actualité moment bi li ci gën moom mooy actualité électorale nan ngeen di dundee campagne bi gis nañ mobilisation bu ci ayib ginnaaw bi ñu duggee fii ci Louga góor jigéen mag ndaw ñëpp génn di leen tatagal loolu aussi ban euh, mbégte ngeen ci waaw loolu mbëkk moom mooy lu ñu liggéey rek terrain bi dañ cee yàgg depuis 2021 ñu ngi ci depuis dem ñëw législatif bi ba dikkaat tey présidentielle ñi ñu ko àndal xaat yuñ benn yoon à chaque fois leader politique yi ñu gisal ku ci mel ne Abdou Lahad nga xam ne daanaka mooy suñu tëdd fiil dañ koy wax ci kaw Abdou Lahad mu tëdd fiil Louga bi te Louga gépp xam nañu Abdou Lahad taxawaayam bëgg na Louga dëkk Louga juddoo Louga yaroo Louga ànd ko ak Pape Moussa mu nekk le serveur de cette coalition ànd ko Modou Mané mi coordinateur bi ndax dañ ko fal à nekk insu nekku fi sax waaye dañ gëmoon ne buñ ko taxawee euh, coordinateur bi dina ko taxawal mhm. mu am ci benn euh, taxawaay bu rafet nekk nit ku oyof nit ku mën a partagé nit ku ma déglu nit ñi ànd ko ñeneen ñi des ñëpp FSDBG ngi ci ànd sàmm jikko yi VD ñëpp a ci les artisans muy coalition bu doy waar boo xam ne man mi maa ngi ci fatal mhm. kon loolu bu amee ci benn dëkk ci benn réew dëkk war nañoo taxaw seet dëkk boobu lan moo waral loolu kon li ci am nag ñu xalaat ne Louga tey bi ñu toogee ak waa mouvement fatal bi mu ñi sama gannaaw tey mu jigéen ñi nga seen ñu def seen harmonie bu rafet bi ci gannaaw man ak ñoom depuis 2019 ñu ànd ak ñun di ñu téyel suñu suñu suñu électorat bi à chaque fois bu ñu voté bureau ba ñu voté ñoo fay gagné ndax lan mooy gëm-gëm waaye Louga boo wagee dëgg-dëgg depuis dimanche passé ba dimanche tey benn parti politique wala benn coalition bu fi yëngu amut dégg nañ nag ah candidat bi jaar na fi bu Macky Sall bi bi fi jaaree gis na ñu demee dem na bay taxaw tàll loxo sax na monsieur le maire bi dëkk bi am na lu xew ndax bu awoon yoon tàll kenn loxo kon yow yaa pouvoir nekk candidat la présidentielle sa président tànn la pare di ñaan jekk du 24 ñu gagné a 19 candidats mais yaa wax sànq lu ñu gis moom mooy euh, seule la coalition président ñoom ñoo nekk di battre euh, le record. kese ñoo ñu bata campagne bi ndax ñoom dañoo xaalu dara ñu moyen xaaru logistique dañu ñëw ci seen biir former une coalition def seen conférence des leaders def suñu ala suñu commission électorale def ko partager ku ci nekk jël poste ba nga xam ne moom la favorable ñu am ay ñi ñoo xam ne ay lañu am ci coalition bi ñuy bind di def planification di def suivi évaluation loolu mooy liggéey bu ñu pare nag suñu dërëm ak suñu daqaar fekki ko ndax lan Sonko jaral nañu ko ndax au soir du 24 bi ñu falee Diomaye su fal nañ Sonko te buñ falee Diomaye ëllëg dina de Sénégal dellu ko ci raay mu nekkoon ndax Sénégal toll na foo xam ne nii ku ci nekk yaa ngi gëstu destin en main xam ne changement war na am ndax suñu askan bi suñu njiit ne yërëmut jigéen ñi sonn nañu comme ñun ñi ndaw yi sonn nañu ñu ngi emprunté géej gi emprunté Nicaragua ñu ngi dee ci ndox ñu ngi leen rey lu waral loolu lépp mooy perte de repère manque de confiance dem amatuñ benn confiance sénégalais yi ak suñu leen jiite loolu nag Diomaye rek moo ko mën a changé Diomaye ne boo ko gisee nit la koo xam ne nii boo ko xoolee rek xam ne nit ku yàlla baaxal la mais nag ku am xam-xam la Sénégal dañu ko toll nit ku am xam li fi nekk ci ressource naturelle ku am xam-xam lañ ko exploité dans 24 heures xam li fi fi rafet ay jikko moo baax mais bu dee alal rek ak ressource ay lépp am na fii ci suñu géej te gëm naa ne président wax bu ñu ko awee yoon ku ci nekk jël nga war jël defe naa Sénégal delluwaat nga xam ne ku ci nekk di nga gis sa bopp ci réew mi mais yéen ngi bàyyi xel enjeu yi am ci exploité Euh, mu ngi xaw a euh, souligner benn complexe d'infériorité mën nañ ko tuddee noonu. xam nga Lat Diop moom la wax démb fañ fa mu waxee fañ fañ ko tonto tontu la moom xale yi tontu ngi saasa ñoom wax complexe euh, boo xam ne nii infériorité amu ci ñoom wax kenn dox kenn leçon parce que def ñu fi 12 ans ils ont tout gâté yàq ba yàq suñu jikko yi. ñoom dañu ba jël nañ suñu lépp yàq ko nga xam ne minorité ci biir quoi ci biir présidentielle bi ñoo gën a gi téye ko nit ñi di xiif di mar di rafle gor ñëpp waaf ci seen ngor. lu waral loolu mooy xamatu fu ñu jëm kon ñoom ku ñu jox leçon du ñun ñi Sonko Ousmane Sonko ak Jomaay Faye ku bëgg Jomaay bëgg fal Sonko da nga fal Jomaay ndax Jomaay ak Sonko ñoom c'est un mooy Sonko kon Jomaay mooy ko gëmal ne lii fal Sonko mooy fal Jomaay te Jomaay lañu bëgg nag au soir du 24 ñu ko ci réew mi mu doxal ñu xam ne nag compétence rek expertise mooy réew. ñoom ñaar seen libération en pleine campagne électorale ñenn ñi jàpp ne euh, doon tamit loi d'amnistie moom moo tax mais est-ce que nekkul benn réeróo bu am au sein la coalition Benno Bokk Yaakaar ah mais Macky Sall moo ko def nit boo tee ko acharné mm-hmm. ne ko ci moom mooy bàyyi ma àq Macky dafa Sénégal ba Macky lu wax mm-hmm. bi waxul leen dafa ne bàyyi ma àq day raxasu raxas na waa Covid bi mm-hmm. raxas na Moussa Fall raxas na ñëpp waaye ñu ñaan ñu ko njëkk ñaan ñu ko admisi laaj ñu ko dara moo choisir génne ñu mooy dugal mooy génne laaj ñu ko dara ñu kon li mu def tey moom ci boppam moom échec am la c'est un aveu d'échec aveu d'échec la Macky am te loolu nag dañ koy encadré mu génn ci jàmm salaam ndax fi ñu toll il est contre tous. est que mën nañ xaar la coalition Diomaye président une fois élu à la présidence ñu moom gëm naa ni du lu ñuy du lu ñuy mën a waxtaane mais dinañ topp justice daal mais topp mukk di fayantoo justice li mu soon ko danañ jël justice teg ko ci kaw Sénégal yi justice di atte mais leneen loolu laa duñ ko def ndax dañ ne sans la justice y a pas la paix hmm. kon no justice no peace hmm. kon nañ am justice ba pare justice bu équitable bu juste doo nga xam nag fan lañ jëm ak ñoom ndax li ñu def ci Sénégal doy rey ci kaso bi ñaata deux hmm. la ñu ñuy ci géej xamu ñaata la loolu ñoom ñu xëy di ko baalu ñu def te baalu ak bi loolu di leen baal de ndax li ñu def ay doom bakke nday jàmbur yi dañoo rey nday jàmbur yi reyaleen beneen rey dana seen doom tegaat ñoom beneen rayaat ndaxte bu leen sama sama doom ñetti at may wër ku ma atte di wër wan yoon nga na ko baal naa ñama ñaara yoon kooku rayaat nga ndaje benn yoon ray baal yoon loolu loolu ki bi Macky Sall def mus am am na am na fi mus fi jóg mais lim amnistie mooy ay feele amnistie parce ay minute ay feele càcc gi euh, euh, ray gi kaso bi lépp la boole te loolu nag dañ ci war wax man nag du ma ne baax na man baaxul moom laa leen baal leen ma nañ ko baal bu ñu ko bàyyee nag ba Ousmane Sonko moom loo tax mu génn dese yi ñu génn dafa xam ni attanutu ci moom pataas bu tàng jër la ci loxo mu sànni ko loolu rek la xamatu fi mu jëm léegi nag amatul beneen beneen beneen alibi mu ne xaaral ma génne Ousmane Sonko mi ak moom pour mu génn mais Sonko laaju ko njëkk laaju ko laaju ko ndimbal laaju ko tamit nag amnistie fiñ koy fiñ koy jeexal rek moom mooy Ousmane Sonko wax na ci kii di euh, Amadou Ba mel ni ab tontante la loolu lépp ci bonne gouvernance ndax euh, bu fekkente ni nee na yàlla bu bëggul Sénégal na ko ci loxo Amadou Ba daf ko xeeb te Ba nekkoon directeur mais xam nga Amadou moom xam nga dëkk bi yàq na koy xet daal même ci ay li mu am te Ousmane Sonko nekk moom impôt domaine ak Jomaay xam na lim sàcc ay réew mi mu rees doon toog ci ko càmbar Sonko dafa nekk campagne nga ne madame ana ana ana ana loolu mu neex wax la la soob dañu nekk match douze la la soob dara du ci xew mais l'essentiel Sonko wax dëgg la nee na ko demal bu sàcc mën a teg fii bul jël Sassou Bakane yàgg na jël lu moomut ndax ay milliards ko am dëkk liggéey fonctionnaire mu tab ay milliards nee yor na ministre des yor na affaires étrangères loolu xam ne li ci réew mi des ministères des journalistes di lépp la am loo xam ne moo leen encadré li ko soo a dégg tax Macky Sall wóoluwu ko ku mel noonu la boo ko joxee réew taal nga sama réew jox tubaab yi tubaab yi ne duñ leen bañ ndax dañuy liggéey ak ñoom coopération la mais dañu naan gagnant gagnant pourtant même lobby yooyu am nañu jàpp ne Pastef aussi tamit euh, lobby moo ko doxal à travers peut financement yi ngeen def lu bëri ci finance ngeen ko defal seen bopp levée de fonds ak yu ni ma lobby ma xëy ba dañ ko ne a ñu bu léegi li mu wax da koy jëfe bu jëfewul dañ ko ne seen yaa waxu li président foo ci toll jeex na ndax Sénégal rek moo ko ñor ndaw yi ko ñor dafa ne vuulee dafa ne xale yi ce que nous lii dafa ne solo yàlla na ko yàlla may mu eggale yéenam ci jamaay fay ëllëg Sénégal seen bopp xale yi delluwaat li nekkoon ëppati toog ci réew mi liggéey ci réew mi yi fi nekkoon yëpp am leen naqar suñu borom ko ndax ñu ñu naqar réew mi am Macky Sall ñu ko teg mais Sonko ak Diomaye deux personnes très identiques mais aussi différentes est-ce que mën nañ jàpp que ne bu fekkente ne Diomaye falu na euh, duñ wax rum tiir ñaanalu leen ko waaye est-ce que ndax ñenn ñi nee nañ nguur kenn du ko yekkalaate non non xam nga Sonko Diomaye moom li ma la mën a waat mooy lii Sonko mooy Diomaye war du ci am war du ci am ndax président Diomaye ku ko xool xam ne nit ku courtois la nit ku courtois nit ku nit ku nit ku nit ku humble la xam-xam-xam dafa solo boo amee xam-xam dangay xaw a am modestie bu gisee gars yi di am seen biir réew seen costume oto yi kat-kat yi billaay walaahi duñu duñu dara xam lañ doon ay trafic ay dañu nekk trafic bi dañu dañu dañu dañu réel nit ñi ku ci nekk defe nga ne yow yor nga alal moo tax war a fexe ba rol sa morom mais jomaay xam-xam bi mu am moo ëpp alal te xam-xam mooy rom réew dafa génne ENA école d'administration juriste la war a doon génne fa nekk impôt domaine nekk fa tamit euh, syndicaliste bi Sonko nekkoon dem ba mook Sonko ñu bokk ñoom ñaar même carrière hmm. kon tey bu ko Sonko xoolee ci biir li mu dajal ci passif li mu bare mu ne ci tànn jox ko ci saa su fekkaan ni c'est pas du hasard. Mm. Sonko tànnul cuune ku mu joxañ kooku la nañ jàpp ku mu bii seen allié yi duñ leen xaw a yàqal parce que ñu bëri ñu ngi jàpp naan premier tour pour mu am mën na bañ yomb parce que Cheikh Tidiane Dièye mu ngi fële euh, président Habib Sy mu ngi fii wala ndax moment bii nii da bëgg rek musé ci Bassirou Diomaye Faye pour au soir du 24 mars 2024 ngeen gagné dès le premier tour.

suñu leader yi ñu gisal Louga fii ngeen bàyyi xel Abdoulakhane Ndiaye bàyyi ko xel bàyyi xel Abdoulakhane Ndiaye c'est un homme boo xam ne nit xam ka gis nga projet Abdoulaye kii bi pro programme bi moo ko décrit benn pàcc bu solo mu digital bi moo ko décrit bi ñu amee problème parrainage mu dugal parrainage bi moom ak euh, Fatima kon loolu bi mu en 2016 bi président Sonko génne domaine dafa def benn quête ci Facebook am ñu génne 6 millions jox président Sonko te boobu ñu génne domaine ci digital la ko defee c'est informatique ku am xam-xam. suñu programme yëpp dañ ko digitalisé amul lenn ki nekk ci bëgg ak fay ànd ak xale yu xareñ am équipe bu xareñ kon kooku da nga ko war a bàyyi xel ci dëkk bi mu nekk ku fekk ku ne ab ku ne jiw fi nekk Abdou Lakhate fi nekk ci coalition Diomaye ak Modou Mané Ami Seye ñu ñu ànd ñoom ñoo fi nekk kenn newu fi loolu mooy wax wax leen waxoo dëgg. jërëjëf ñu bàyyi la waaw maa ngi nuyu ñëpp di nuyu nag sama jigéen ñi nga seen ñi ci ginnaaw suñu présidente des femmes nit femmes fatales maa ngi ñoom nekk depuis 2019 di leen nuyu di leen sargal nga xam ne fu ma nekk nekk dañuy xëy sax defal benn arme déguisement di ma waral ne ba ñu honoré kon ñii macha allah nekk des sages femmes mm-hmm. nekk des matrones di liggéey am seen seen teranga ubbati ko jël nag Ousmane Sonko def ko seen candidat. Mm-hmm. depuis 2010 ma ñoom ñi ànd ci développement di ànd ci maam ci politique. ma nekk fekk na sama sœur Adja Sonko mm-hmm. day dafa sama nekk nii sama mbokk la sa mbokk dafa fort. dañ lu dagg borom lay fekki waaye sama mbokk la moo tax tey lii am mm-hmm. mu France sama néeg bu bët ñu waxtaan mu xam ne maa ngi ma bokk lépp mm-hmm. mu jël tamit cër joxaat ma ko taxaw nag ba di bëgg a défendre ci bi te xam naa ne jigéen rek moo a ànd defar moom jigéenam mm-hmm. kon Adja merci beaucoup di remercier jigéeni Fatali yi sur la coalition Diomaye président di remercier Pape Moussa Sy nga xam ne mooy suñu cerveau li muy liggéey ci coalition bi mucc na ayib liggéey jigéen di gërëm jigéeni coalition bi yépp nag di jigéen représentant muy madame ñëw na démb Mimi Touré am nañ fi coalition yi am nañ fi différents partis politiques différents mouvements moo ne ci coalition Diomaye Faye kon ñooñu am loolu ñooy coalition bi wóor ci dëkk bi kon ñu fexe joxeel maire au la main loxo dem vers les élections fexe voté utile voté utile mooy lan réew mi nañ ko tegaat ci yoon ki voté xamal li nga war a voté bu kenn takk brassard bi voté ji nañ dem voté ci 7 ñu voté ji toog ba 18 heures ñu jël suñu suñu euh, urne sécuriser ko bu ñu paree génne suñu PV yóbbu ci permanence ba xam ne dañu am bu kenn tayal bu kenn découragé parce que ñi ils sont à tout ba le jour du vote ils sont à tout kon bu leen may dara ñu tamit merci beaucoup. jërëjëf Laye moo nekkoon ci cadrage bi ak Baye Sall Mor moo nekkoon ci présentation bi. del déglu del xool.